bi yàqu mën na sax ba perte sëyam il faut que ñu am ay réalité mhm. ñun Sénégal dana am ay réalité ndox bi euh, ci euh, euh, soble boobu ngeen di wax noonu mhm. Sénégal la gën a yombeke fii fii nii soble bu Sénégal moom nañu gën a bëgg ko bële dëkk mu ne dafa am réalité c'est une réalité par soble boobu ñuy bañ Sénégal Europe kii moo gën a cher mhm. bi nga xam ni moom nañu bëgg ñun eggul un euro ça fait zéro quatre-vingt-dix-neuf en Espagne je vous parle man maay dem jënd beneen bi egg na presque deux euros c'est ça nga koy jëndee ay un euro soixante dix huit wala quatre vingt tu comprends mais boobu dafa bare ndox boo ko toggee yaasa doo si génn te xam nga Sénégal dafa may ay réalité boobu parenthèse la woon rek donc ñun lu ñu war a def noonu mooy kii jaay par exemple kii dem siin di jëndi day indi loo xam ni moom la Sénégalais yi bëgg donc baykat bi mën na jënd semence boo xam ni dana indi tamit euh, soble bi nga xam si moom la Sénégalais yi di consommer parce que ñoom. c'est vrai que Sénégal am na lu muy perte même ñoom ñoo ëpp li ñuy perte parce que chaque fois li ñuy gis ñoom ñuy sa ñuy di suul soble bi sax te loolu du njëriñ bay ba pare di ko suul amul njëriñ autant yow booy jënd semence bi nga jënd semence boo xam ni day ñëw soble bu dëgër bi bi nga xam ni bëriwul ndox donc loolu parenthèse loolu maintenant eh, li ngeen di wax noonu par rapport ak eh, waa ji wax na que ni boo nee ci biti doo gis affaire yëpp non no non les gens ont tout vu moi j'ai tout parce que eh, affaire je fais donc je suis en permanence je suis en permanence depuis Ablaye Wade et affaire commerce bi ni ñu koy doxee au Sénégal lii lii tax Sénégal eh, nga jëndee suukar bi par exemple je donne l'exemple sucre wala riz bi wala huile bi nga jëndi ko à l'étranger indi ko Sénégal mu wàcc pooru Sénégal jàll ba Gambie gën a yomb Gambie que Sénégal du leneen du leneen il faut que les gens ouvrent les yeux que ñu ñu ñu wax ak nit ñi dëgg benn affaire dong la. mooy saar benn bi mooy saar beneen bi mooy ay affaire sédiment et parce que dafa bare monopole y a des sociétés yoo xam ne dañuy am monopole SAR a été boosté par Ablaye Wade de sorte que yow tey jii nii par exemple man nga indi bateau euh, euh, gasoil wala <clears throat> ak lu mu mën a doon nga yóbbu ko ga euh, Lomé port Lomé c'est devenu international plaque tournante en Afrique Mm-hmm. ñëpp ku jóge Chine ah. euh, euh, euh, Russie fu mën a doon bateau boo ko amee doo xalaat Sénégal alors que on a plus de possibilités parce que ñun pointe Sangomar la ñoo gën a jege foo jóg foo jóge ci Sénégal Sénégal fu si monde bi Sénégal ngay jël cap ñoom dañuy jël cap Sénégal pare tourner Lomé parce que ils n'ont pas ces problèmes de quota ils n'ont pas ces problèmes de monopole aujourd'hui yow soo indi woon bateau flottant tey jii nii suukar wala mais wala dëwlin wala lu mën a doon mënoo ko jaay Sénégal parce que am na da ngay dañ lay laaj quota par exemple danaan euh, El Hadj Ndiaye moo mën a jaay su euh, dafay am quota euh, dëwlin je je dis doon non ah wala ñun la SAR mënoo jaay benn bateau par exemple tey jii soo amoon bateau vingt cinq mille tonnes gasoil wala essence mënoo ko jaay Sénégal ku saar SAR moo koy jënd jaayat ko jaay la ko jaay ko keneen station service kenn mënu ko jaay si biir dëkk bi alors donc loolu mul mooy lan monopole la parce que SAR li leen taxoon ñu ko doon def Ablaye Wade Euh, je reviens sur PDS et sur Ablaye Wade moom it li Macky def rek la def moo ko commencé makki yokk ko pourquoi parce que ñoom il voulait deux choses mooy lan SAR dañ leen permettre ñoom ñu euh, récupérer rapidement à travers le pétrole et le gasoil et le gaz seen euh, les taxes douanières yi nga xam dañ koy ñëw tout suñu def si mallette yóbbu biir palais Ablaye Wade ku dugg jox la cinquante millions on a vécu ça pendant plusieurs années beneen bi si ne mooy que ni yooyu noonu ñu yokk ñu contrôler def ko monopole mooy mooy eh, mooy mooy ñëw si lépp tous les produits bu bu euh, électricité bi seeree looloo tax bu ndox bi seeree looloo tax bu production yeneen produits le peu bi ñuy defar fii avec les industries loolu moo tax donc il fallait que ñu libérer de sorte que yow mu yow di man di ñun ñett ñi nga xam ne ñooy waxantaan ak ñi ñuy déglu képp ku si am partenaire Mexique mu jox la bateau euh, gasoil tu as la latitude et la possibilité de l'amener au Sénégal de vendre pourquoi tu es obligé de jaar nga jaar Sarr Mhm. pourquoi et Lomé ça se fait et ça c'est un pays petit pays boo xam ne c'est une petite ville qui fonctionne je te jure si tu veux des les gens me demandent des bateaux flottants tout de suite en sucre mais Sénégal c'est impossible mhm. boo demee Lomé euh, euh, mbuusu mbuusu carotte dana la koy jaay cent cinquante deux cent Sénégal c'est pas possible parce que le truc ne euh, boo demee pare beneen affaire yëpp dañuy lekk moo tax may jaxase affaire yi pour ñu gaaw parce que ñeneen ñi di dugg mhm. boo demee par exemple Sénégal Euh, euh, ganaar yi yéen a xam ñaata lay jar waxuma ñaata boo demee Lomé c'est la moitié pourquoi depuis Ablaye Wade avec la grippe aviaire si noonu interdit woon ñu dugal ganaar au Sénégal. Mhm. Sedima profite aussi en ce moment-là j'avais le chiffres Sedima ne facturait pas un milliard après l'interdiction ils ont fac ils facturent plus de quarante et quelques milliards et c'est des chiffres il faut voir vous pouvez les voir donc c'est des choses comme ça Sedima aujourd'hui yow boo doon jënd Sedima tey nii. je vais dire parce que ñun ñëpp ay Sénégal lañu da ngay yónnee sa commande ci pay 15 jours après ñu soogaa lay livré soo ñëwul ñu jox keneen tellement y a un monopole mais monopole booy jàng économie te Ablaye Wade il était professeur d'économie de mathématiques et tout yëpp li ngeen yéen a ko dégg mais moom erreur bi mu jëkk yi mu jëkk def moo plombé Sénégal ba léegi Macky bi mu ñëwee dafay gën a rek il n'a rien fait pour l'enlever donc euh, li ñu jëkk wax mooy ni trop d'impôts ci l'économie et le monopole et et, et euh, les prix et c'est le dernier consommateur qui paye le, le, les coûts toujours c'est le dernier consommateur qui est le mm-hmm. dernier consommateur ce sont les ménages les sénégalais ñun ak yow ak ñun suñu frères yi ne foofu suñu sœurs yi et cetera mm-hmm. il faut que ñu ose bàyyi que yow yéen ñaar ñett ñu am euh, sédiment quatre wala cinq biir Sénégal vous verrez que ganaar et le ko jar cinq mille day ñëw jar si deux mille c'est l'intérêt des ménages trois mille yi mu def ko si poche mën si jënd jënd def ci leneen et cetera il faut que qu'on ose beneen bi si am mooy euh, ministre du commerce mm-hmm. dafa am lu ñuy wax quota dafa am quota quota bi ñoom dañ koy jox seen bopp muy politiciens yi di ko jox quelques commerçants yi boo gisee ceeb tey borom boo demoon bëgg a jënd ceeb danaa la non non mën a dugal ceeb yaa ko sept ki loolu la quota mm-hmm. sept personnes mm-hmm. ñoo am quota ñoo am droit jënd dugal ceeb Sénégal alors que su doon vingt personnes wala ku mu neex tey l'Indien sax Indien bi sax mën na indi batom ceebam ñëw jaay ko fu Sénégalais bi di jaayee euh, mm, euh, fi nu Sénégalais bi di jaayee cinq mille moom mën na fa ñëw jaayee quatre mille cinq cent que la jóge si langue bi jóge euh, kii Pakistan ni non non man quatre mille cinq cent du ma ko jaayee du mu si génn mën naa jaayee trois mille. Mhm. c'est toujours l'intérêt du dernier consommateur. les leviers là de éliminer concurrence éliminer SAR suñ ko defoon quelques mois quelques mois prix ñooy wàcceel seen bopp. parce que Sénégal est très prisé. Sénégal mhm. ñëpp dañ fa bëgg dem parce que y a la paix. Sénégal ñëpp gën fa bëgg a dem parce que c' est le point de Sangomar foo mën a jóge par exemple Brésil soo jógoon Brésil di indi benn bateau ceeb. Euh, d' suukar je veux dire parce que fa la suukar bi jóge. Mhm. y' a neuf jours pour arriver à Dakar. boo doon dem euh, lome yokk ci yeneen quatre jours. Mhm. donc c' est des choses comme ça que nous nous depuis lors ñoo koy traité di traîner et toujours ministre bu commerce bu ñëw affaire bi da koy arrangé parce que les les quotas yi muy joxe noonu si lay jox sëriñ si politique sëriñ fi da koy jaay. man toog naa fii ñu ñëw di ma jaay quota cent cinquante millions pour pour pour ceeb euh, ñu jox si yenn commerçant yenn commerçant yi yi leen di politiqual yeneen yeneen yeneen seen politiciens yi moom ni ñuy jaay aussi pour dem campagne seen village ak yooyu. donc c' est des choses que nous il faut qu'on se regarde dans les yeux ñu penser au dernier ménage au dernier consommateur pour ñu mën a avancer. Mhm. jërëjëf je termine parce que loolu je tenais à le dire. j' espère mhm. vont m'écouter ils vont dans ce sens là. d' les impôts et le maletu xaalis yi fay jóge laajala yow boo jógee fii yow journaliste nga demal si benn station service nga ni ko est-ce que am nga droit yow bata ñëw port rek nga dem jënd ko defal sa kii cisterne jaay il te va te dire non je suis obligé d'acheter avec ça loolu monopole la Sedima tout le monde le sait et ce que je te dis là c'est en connaissance de cause j'y travaille tous les jours mhm. beneen bi si toog mooy Ablaye Wade euh, kii Macky on bon non non 30 secondes. Macky il a fait tellement de dégâts que euh, ah dañu war def ah euh, dañu ko war a def dañu ko war a def woo frontière yëpp ñu tëj ko. lu muy wuti fu Sénégal yi jëm mu jëm fa di labar labar yi koo xam ne on l'a nommé juste euh, xam nga lan la envoyé spécial xam nga mooy lan. Mhm. pour yow benn conférence annuelle. benn conférence annuelle nan la nommé ancien ancien président yàpp la moo tax ñu lay def conférence yow sa CV boo nga ko jëloon yóbbu ko Union européenne wala Nations unies et ñu jox la ñu def la envoyé spécial pour nga régler des des trucs ponctuels yow on t'a nommé envoyé spécial pour une conférence annuelle qui se tient chaque année une fois hein Sénégal yi ne fii les ministres et cetera à Paris euh, FMI pour régler des choses nga ñëw di lambar lambar wuti foofu loo fay wuti. lan la fay wuti alors qu'il a tué des gens ici il a fait énormément de colis il a volé l'argent du pays il a fait euh, une maison avec hectare hectare euh, Maroc ñun ñoo koy fay dëkk boo xam ne les gens ne mangent pas leur faim il faut qu'on l'arrête moi je ne sais pas quand mais j'ai fait confiance à Sonko ce gars-là il faut le chercher monsieur ça va être difficile avec le Maroc mais les Marocains ils ont énormément d'intérêt au Sénégal que suñ ko suñu leen laajee Macky pour juger ko ils vont être d'accord à défaut on récupère le banque qu'ils ont là et on met son partout frontière bu mu dem ñu dem jëli ko indi ko parce que mënul toog te voyagé wul il est mais qu'il s'arrête waroon na man a sax bu fekkoon am na tuuti déontologie mu gëm mhm. dara wala mu nga xam ne ku am lu muy bañ la bu bu demee Maroc mu toog fa tuuti sax mais dans le mois quelques jours après ngay lambar lambari di fekk ministre yeeg ba tax na ñuy polluer atmosphère bi au Sénégal comme quoi c'est lui qui allait nous négocier des choses. qu'est-ce qu'il allait faire aux États-Unis mm-hmm. il n'a qu'à s'arrêter et les autres là il faut ils n'ont ils n'ont qu'à aller vite dans ce qu'ils font tout ce qui est ministre même Macky Sall moom tout ça il faut le juger la police la gendarmerie il faut juger ces gens-là pour que personne d'autre ne va répéter cela au pays euh, le Sénégal ne mérite pas ngi jégalu Et mais pour ce qui est commerce, je suis d'accord et je suis, je je suis pour que les gens aillent au niveau du SAR parce que sous électricité yokkee su gaz yokkee lu mën a yokku lépp a yokku lekk lépp a yokku uh-huh. ah, affaire merci jërëjëf jaajëfal ko bu baax a baax ci kàddu yi mu yëkkati nekk euh, yu am am solo surtout ci euh, mbirum li nga xamante ni moom mooy wàññi daani alimentaire yi mm-hmm. euh, ñaari point yu am solo mbirum li nga xamante ni moom mooy quota yi mu wax ci mbirum li nga xamante ni moom mooy importation wu yenn ci ay produits yu ñuy amal ak li nga xamante ni moom moo di mbirum saa boobu mu mu yëkkati dafa nekk lu am am solo parce que boo xoolee Euh, li mu wax sànq boo délivré sa bateau fi nga xamante ne moom moo di bitim réew ko amoo droit nga jaay mm-hmm. mais j'espère que ni mun nañ comme ni ñu ko expliqué euh, c'est bu baax ñëw euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu yokk mi nga xamante ne mooy quota yi boo jëlee benn mbir nga jox ko benn entreprise kese ngeen ko yaa am droit di jënd par exemple ñu ne cinq entreprise wala cinq nit ñoo am li nga xamante ne moom moo di droit bu ceeb ñëwee ñu jënd ko di dugalaat ko ci biir dëkk bi bu boobaa ñoom mën nañ ci doxalee dem la neex mais bu fekkee ne tamit loolu day nekk beneen processus yow mi nga xamante ni euh, grand commerçant nga amoo droit wu nga jógee fii nii dem port peut-être ci li nga xamante ni moom moo di euh, lii di produit yooyu ñëw jaayaat ko ci réew mi mais bu fekkee ne dafay jógee bitim réew ñu am ci kum jaar jógee ci kooku jaaraat ci grand commerçant bi donc produit yi parce que kum jaar da nga am ci looy yokk yow tamit pour am ci bénéfice mhm. Mhm. loolu tamit dafay Euh, au début euh, à l'entame de mes propos maa ngi lay wax ni la di nga dem marché di jënd dara moom euh, commerçant bi ci boppam. Mhm. ne la yow prix bi nga ko bëgg que man amee ma ko loolu. oui bien sûr diminution bi nga ne maa ngi koy dégg ou bien réduction bi ma si dégg nekk na réduction boo xamante ni ñoo ko déggandoo ci télé yi ak ci rajo yi mais affaire bi yeggul ci man. Mhm. ba ma demee di ko jënd tel laa ko jëndee et de laa ko mën a détaillé waatee. Mhm. mu nekk une problème mu nekk am problème qui se pose boo xamante ni tey jii. on sa demande euh, comment se fait ñu mën a wàññi produit te produit bi tey jii bu fekkante ni dafa am ci ay étage yoo xamante ni foofu la jaar hmm. ba mën a yegsi comme ni nga ko waxee évidemment tey boo demee ci poor kii jaay la ko lii nga ñëwaat keneen jaay ko mu am ay sous traitement sous traitement yoo xamante ni tey jii pour mu wàcc ci ki nga xamante ni moom moo di consommateur consommateur bi boobaa foofu mbir mi foofu lay kale mhm. état nag toogaat di euh, xool naan pourtant de wàññi naa pourquoi affaire bi wàññeekuwul alors que c'est pas ça le problème il a soulevé un point très très très très important ci li nga xamante ni moom la wax concernant aussi ba tey euh, damay ñëwaat ci production locale bi mi ngi naan euh, Europe boo demee bi ngay gën a bëgg mooy suñu bos mhm. te moom moo fa gën a cher moom moo fa gën a cher d'après parce que nee na ñoom seen seen bos bi mi ngi dikkee moins d'un euro alors que ñun suñu bos presque quasiment àgg na deux euros pour ñu daal di koy am te ñun fii on connaît pas li nga xamante ni moom moo di euh, valeur boobu euh, certes que nag des fois comme ni mu ko waxee. des fois peut-être que njóobeen ni lii boo ko toggee am na ndox wala mm-hmm. c'est que c'est-à-dire du mënul ñàkk raison de plus pour ñu def appel doofu ci ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci tey jii ñu xoolaat comment reproduire li nga xamante ni moom moo di yooyee denrées alimentaires comment faire une reproduction à tel point que li ñuy chercher ailleurs ci ay produit importés ñu daal di koy amal suñu biir fii nii ci réew mi ba tax bu boobaa euh, consommation bi locale daal di mën a dox Cheikh Omar Sy ba tey dama koy rejoindre sur ses propos ci étude bi nga xamante ni def na ko effectivement évidemment duñ ko mën a wàññi du jour au lendemain mais quand même nag on s'y attend très très très très très fort que moom son excellence mu daal di ci liggéey bu baax a baax a baax parce que nag l'heure nekkatul heure boo xamante ni dañuy dundee yaakaar toog di xaar rek naan li nan la mën a demee euh, wala fu ñu toogee rek ndi xalaat naan euh, kañ lay baax wala kañ lay baax mën nañoo jël exemple ci kawu location bi. Mm-hmm. c'est pas une première ñu daal di ci génne. ay décret présidentiel ni non tey borom kër bu la wàññiwul une pour pourcentage mun nga koo boole mais borom kër yi ci boppam ñoo naan la demal état tabaxalul ma sama kër. loolu lañ lay wax boo insister ñun la jëlal sa bagage nga romb ma sa moroom daal di dugg. Hmm. te kiy duggaat bu dikkaatee dañ koy yokkal mu daal di koy accepté soog koo jël bu ko accepté wul mu dem keneen ñoo fay la duubul. dama gis ne loolu yëpp mi ngi nekk ay problème yoo xamante ni ngir ñu régler ko du doon du doon lu yomb waaye tamit dafay laaj loxo subvention daal di fay dugg subvention étatique daal di ñëw subvention boobu bu dikkee tey mooy permettre à ce que yenn accords yi am ci diggante jaaykat yi jëndkat yi subvention bu amee dina fa dugal benn somme d'argent boo xamante ni askan bi ci la ñuy yëgee seen bopp bu hmm. fekkante ni réduction mënulagul am nañ def subvention pour le moment en attendant de bien traiter le dossier xool naka la ñuy def euh, ba ba daal di wàññi dund bi. merci euh, am na solo ñu mën a participer aussi ci 77 914 64 93 ngeen daal di yéen tamit wax euh, seen xalaat ci li nga xamante ni moom la ñuy daal di waxtaanee mu bokk ci li gën a fës ci actualité bi salaamaaleykum mbokk mi. sëñ bi ñu lay ziare bu baax. ñoo baax bu baax. ñoo ngi leen ñoo ngi leen di suivre. jërëjëf ci leen suivre bu baax a baax li ngeen def ñoo ngi koy rafetlu bu baax te di wax sunu borom dafa leen xéwal foofu ngeen nekk ak jàmm. jërëjëf. nit ñi nag ñoo war a am patience ci Sénégal. Mhm. ndax mu mënoo ci léegi gerte léegi mu ñor léegi nga lekk ko léegi loolu moom ku mu wàcc sa kaw sax war ngaa tiit. Mhm. ndax état bi ñoom ñu ngi liggéey li ñuy liggéey. seulement que dañuy jël lépp di ko tasaare ci mbedd mi ku nekk di ci am wàll di ci wax loo ci war a ak loo war wax parce que nit ki nekk di liggéey di concentré wu li muy def da koy may battement mhm. ndax boo gisee boo gisee ceeb bi seer dund ki sax laay wax am lu ñuy wax ay dafa am ñu ñuy woowee ay cox ay coxeur mhm. soo xoolee le le ministre Ibrahima Fall bi muy bi muy bi muy bi muy laaj Sénégal ñooñu mu ngi leen doon wooyee Euh, ay ay bukki bukki leneen daan woowee mooy li ñuy ñuy tuddee seen bopp opérateur économie ak yu mel noonu mënoo toog yow ci naaj ba fële nit ki di bay gerteem ba gerte gi ñor nga ne ko temps nga koy jaayee te yooyu bu coxeur yooyu bu ñu xasee bu jug ci diggante yi rek ci intermédiaire yi rek maanaam dund gi day yomb ndax tey hmm. mënoo dem jënd xanaa ceeb Chine wala nga jëndee ko feneen ñëw mu mu coûté la par exemple quatre mille francs saako bi te yow nga indi Sénégal. mu am ay intermédiaire taxes yeeg yooyu ba nga mujj gi balaa moo àgg ci consommateur bi day daal di àgg ay vingt cinq mille loolu c'est inacceptable loolu xel nanguwu ko daal waaw ba tax na man jàpp naa ne état bi fi nekk nii ñoom ñu ngi xool ñi nga xam ne ñoom ñooy intermédiaires yi bukki yooyu ñu doon ñooy ñu naan bukki bukki yooyu daal lañ nekk di traqué léegi bu ñu xasee ba xam nag ceeb bi ki koy jënd la mu koy jëndee bitim réew ba mu ak Sénégal ñaata la koy coûté après ñoom boobaa ñoom taxe yi nga xam ne mooy taxe wàññee ak yooyu ñoom dinañ ko wàññi. ba bu ceeb bi de agsi si bi xëy na saako bi sax du ak dix mille franc ñu borom consommateur bi koo am léegi nag ci diggante bi nag. Hmm. li ñaan réew bu avancé rek c'est que la muy dundee da koy bayal boppam. léegi le temps que nag nit ñi di toll ci mbirum bay bay am récolte bi ñu soxla pour Sénégal dootul jëggaani ceeb. ak leneen lu mu mënti doon boobu dina fekk lii ñu réussir ni ñu réussir koo ba pare léegi bu ñu ko réussir nag dañu am benn patement wu deux boo xam ne nii dinañ mën a récolter loo dinañ mën a bàyyi loo xam ne bu ñu ko récolter dootuñu importer ceeb dootuñu importer yenn yi nga xam ne dañ koy soxla. Mm-hmm. waaw léegi bu dee tamit ñun dañoo bëgg a nekk ak pays importateur di imp di yóbbu di jaay ji ay lu mel ne leneen ak leneen boo xoolee li ko dalee Kaolack jàpp Kaffrine côté yooyu yëpp mën nañ fa bay mboq. ndax boo dee xool pays anglophone yi ñoom mboq rek la ñuy dundee léegi su ko defee nag ñun tamit ñu leen koy jéem a jaay nga xam ni bu boobaa loolu day duggaat ci keesu état sénégalais bi di ci gis boppam loolu war nañ ci mën a xool ay saytu bu baax a baax te day doon mboq moo xam ne doo ko doo ko te boo xoolee pays anglophone yi ñoom mboq mi ñuy dundee boo dee xool lu ci bëri Amérique lay jógee ak feneen ak feneen ñoom mboq mooy seen ceeb. waaw léegi nag comme ñun suma dëkk tamit nangu na mboq ñun lañ jéem a béy mboq jaay ko anglais yi waaw waaw lu mel ne Nigéria ak yenn dëkk yooyu yëpp waaw ñu bañ a concentré wu rek ci track track track track track track ñu koy def ñu ngi koy def loolu mooy seen liggéey ñoom ñu ngi koy def yaa léegi li ci def tamit li gën a am solo tamit nga xam ne mooy gën a jëmale réew kanam mooy keroog li jomaay wax ñëpp dégg nañ ko mm-hmm. waaw bu ci président euh, kii bi ñëwee européen bi communauté européen bi ñu fa ñëwee ndax bu njëkk ba boo dee xool tey gouvernement yi fi jot a jàll yëpp buñ musaane jël siège bi li ñu njëkk a xalaat yi xaaral ma jël vol bi dem gisanteeg communauté européen bi nangam ak nangam non yow yaa toog gars yi fekk si la parce que ñoom yow yaa yor ñoom luñ soxla. d'accord toog nga toog ñu fekk si la la loolu c'est un grand pas man pour la démocratie sénégalaise man noonu laa ko jàppe waaw léegi nag ñi nga xam ne nag ñoom dañoo war a nangu ni ñoom seen wàll wéy na. mooy ñi fi nekkoon doon dundee nguur doon dundee état ñoom seen wàll wéy na nañ ko nangu dañu yem jéem uti ji liggéey jéem uti lu ñu def toog ci télé bi di wax di ruube nag loolu taxul réew ñu jëm kanam nañ liggéey yi te nit ñi xam ne léegi ñëpp yeewu nañ ku liggéey am ku liggéey doo am tus loolay wax ji. d'accord waaw jërëjëf nag bu dee wax ji dafa gudd wala mu am lu ci manqué rek maa ngi jégalu. d'accord merci beaucoup. jërëjëf jaajëfal ko bu baax ci euh, kàddu yi ngeen mën a continuer ba tey ànd ak ñun ci 77 914 64 93 ngeen mën a bokk ci euh, waxtaan bi euh, mbirum li nga xamante ni moom son excellence Bassirou Diomaye Faye di ki démb daal dinay recevoir secteur privé bi ba daal leen di xamal que ni moom moom mi dina daal di amal ay wàññite yu mu yéene ci li nga xamante ni moom moo di mbirum lii di dund gi maanaam denrées de première nécessité yi am koo xamante ni mën nañ ancien député Cheikh Omar Sy daal di jàpp que ni loolu du loo xamante ni ni ça se fait du jour euh, au lendemain mbirum wàññi euh, dund euh, googee mu mel ni am na ku nekk ci ligne bi Amina. bisimilah. asalaamaaleykum maa ngi ziar. maaleykum eh, di rafetlu programme bi. ah waaw vraiment vraiment parce que yéen nekku leen di wax ci ay ay premier ministre buy dox ci tapis yéen a ngi wax ci développement vraiment. <laughs> merci beaucoup. Eh, fii la fii la waxtaan wi nekk mooy wax luy développer luy luy doxal affaire yi eh, gouvernement buy soog a ñëw tey le 24 le quatre passé lañ ko éliroon eh, nga bugg ko taxawu ci yenn domaines yi ci dangeen leen di stress alors que ñooñu ñu ngi ci ay ay li ñuy régler di régler intérieur bi di régler ci biir ci biti dañ leen war a bàyyi ñu préparer li ñuy préparer parce que ñii ngeen di gis nii. ñëwuñu pour pour pour pour pour def li fi li fi jóge dañ ñëw pour def lu bees li ñuy wax rupture ñooñu nag da ngeen leen di may eh, bu ñu waxee conseil des ministre ne gouvernement bi du teg benn action gouvernementale fekk réglewul ministères yeeg département yi ba pare loolu kay doy na wax mooy may leen ñu ñu régler li ñu war a régler ñu soog a jublu ci biir dëkk bi. Mhm. Eh, ñun fii ma nekk nii en Europe du Nord damay jënd ñaari kaasi dege à dix mille francs bu nekk cinq mille francs pour togg maafe. alors que gerte gi Senghor mu ngi koy jaay tubaab yi depuis indépendance à cent dix francs le kilo gisu leen foofu benn béykat yi gerte bu développé ñi ko daan béy dee nañ seeni doom ñëw nañ béy ba dee te amuñu dara ay baadoolo lañ ba léegi boo leen demee ñoo dëkk ci àll bi ci ay néegi ñax te booba temps ñu ngi jaay gerte gi cent dix francs la kilo tubaab yi ñoom ñu defar ci kilo bu ne ñaari kaas yi si nga dege jaay ma ko man Sénégalais benn kaas bu ne cinq 5000 francs muy dix 000 pour ma mun a togg maafe fii ma taxaw ci suma wañ loolu la ñu Senghor bàyyee eh, eh, eh, nekke woon fi ak littérature le soleil le vent qui souffle ça n'a jamais développé un pays la littérature Abdou Diouf ñëw même chose Abdou Abdoulaye Wade ñëw même chose Macky Sall ñëw nag ne et je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression et finalement finalement euh, le peuple l'a réduit à sa plus simple personne merci peuple sénégalais pour parler du développement euh, da ngay xool tey ñu jël un ministre euh, kër ga mu dëkk bunti kër gi brigade gendarmerie la six gendarme bunti kër ministre ci temps wu Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall bunti kër ministre brigade gendarmerie la ñuy wax affaire yi insur insécurité ci yeneen dëkk yi c'est pas normal lu lu lu brigade gendarmerie di ut ci bunti kër ministre nga jël un ministre ñu di ko fay deux millions par mois wala deux millions cinq cent mhm. et eh, du fay courant du fay ndox du fay courant du fay ndox lan moo tax pour lan courant du fay ndox alors que loolu ñuy defal ministre bu ne muy fayeeku deux millions cinq cent dafa war a fayal boppam courant fayal boppam ndox mooy yoon ndox loolu courant boobu muy lakk ci këram taal ay clim ci dix chambres quinze chambres di lakk xaalis bu dul jeex mënoon nañ ko financer opérateur économique dans chaque région li ñuy def ci kër ministre bu ne ñu def ko ci chaque région pour ubbi fa un magasin boo xamante ne fa la ñuy stocker les légumes par exemple bu ñu jëlee un opérateur économique mu dem Kaolack ñu ne ko région de Kaolack yaa koy alimenter en soble en pomme de terre en leneen ak leneen mais en retour état bi dina la baal courant pendant deux ans courant bañ doon fayal ministre boobu gratuitement ñu di ko fayal opérateur économique boobu ci hangar bi mu tabax a Kaolack pour alimenter toute la région de Kaolack en produit ñu may ko courant boobu pendant deux ans le temps que mu mettre ses ses économies à jour noonu la ñuy développer pays fii ñu nekk nii mairie bi day tabax centre de formation ci biir biir mairie yi muy mécanique muy muy euh, menuiserie métallique muy ébéniste jël ay professionnels yu yor seen atelier ci biir dëkk bi ñu ne la kaay ci biir école bi en tant que menuisier métallique nga jàngalal ñu trente personnes pendant trois ans ñu nga former leen liggéey boo am ci biti nga indi ko ci biir mairie bi liggéey ko fi encaisser sa xaalis yóbbu te doo fay courant doo fay dara mais en retour dañ lay baal sax impôt pendant trois ans mais li ñu la laaj mooy nga formel ñu trente personnes yi dans trois ans ñu qualifié ci métier bi nga leen formé ci biir mairie bi lañ koy def tout ça c'est c'est des politiques pour euh, jox xale yi métier c'est des politiques pour développer les les les les petites et moyennes entreprises c'est des politiques pour euh, may les opérateurs économiques ñu départ pendant deux ans ñu di leen fayal courant ci magasin bi ñu ubbi difa def les denrées soble bu xonq boobu ngay wax mois je l'achète ici à mille cinq cent francs le kilo soble bu bi nga xam ne mooy jóge ci biti ma di ko jënd euh, euh, six cent francs sept cent francs donc soble bu xonq boobu nit ñi sénégalais yi di bañ foofu moo gën a cher fii moo ëpp valeur moo gën a baax sur le plan médical sur le plan sanitaire moo gën a baax mais les les sénégalais dañoo am habitude ba pare tubaab bi ñoo ñëwoon. force ñu ñuy béy gerte ñu dem beneen forcé leen ñuy béy coton ñu dem Côte d'Ivoire forcé leen ñuy béy eh, eh, eh, cacao tout ça c'était pour leurs propres intérêts maintenant bu ñu demee ba xam li baax ci ñun war nañoo mun a xam ne ceeb dama ñuy jox jabet pourquoi nous mangeons du ceeb chaque jour pourquoi et suñu gerte on fait de l'huile d'arachide yóbbu ko Europe ci bateau di ko jaay tubaab yi deux mille francs le litre alors que bateau boobu yóbbu huile d'arachide bi en Europe jaay ko deux mille euh, te du duñu doon ñun sax ñeneen a koy jënd ci ñun yóbbu ko Europe bateau booba buy retourné si moo ñuy indiwil de des deux cent litres de de d'huile yoo xamante ne dañ koy lekk cancer moo ñu ciy fekk ak feebar yu dul jeex parce que diwlin boobu baaxul alors que suñ bos bu baax bi lañ leen di yóbbul ñoom indi bu bon bi bul xam sax lu ci ne xamuloo gere si mbaam la xamuloo gere si fas la xamuloo gere si lu mu doon ñu indil la ko di ko tuur ci seen biir population ñuy lekk di feebar bu ñu feebaree am problème sanitaire ça va coûter de Pourquoi ne pas transformer nos, notre propre arachide en huile et le vendre beaucoup plus moins cher et ne plus amener cette huile de merde qui nous tue qu'on nous amène de l'Europe? C'est ça la politique. Si les États veulent vraiment développer leur pays, il faut vraiment qu'on consomme local. Consommer mmh. local, ça veut dire di béy di dunde. Loolu nag opérateur économique, il faut qu'on les aide à pouvoir supporter les coûts les premières années. de leur de de de, de leurs entrepreneuriats dans les régions et ne mhm. plus donner de l'argent pour aux ministres pour qu'on leur paye leurs électricités et l'eau dans leur propre maison alors qu'ils ont 2 millions 2 millions 500 de salaire on peut vraiment aider les opérateurs économiques dans les régions pour que ñuy stocker nos produits pour que di ko mën jaay moins cher parce que dañ leen bàyyi baal courant pendant deux ans trois ans c'est ça le développement. d'accord merci vous faites du bon boulot waxu leen ci affaire yi tapis premier ministre bu dox ci tapis waxu leen ci vraiment ci ci ci ci ay ay yu sew yooyu merci beaucoup 2ATV merci. merci jaajëfal également euh, wax ji daal dina am solo euh, moom tamit. Euh,